sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad mbokki Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baal yéen ñi nga xam ne ni yéen seetan seetaan ci canal bi di leen invité ngeen abonné te bés cloche bi nga xam ne vidéo bu ñu def rek ngeen mën koo am ci sensé seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad tey nag ñi ngi ñëw waxtaane waat ci waxtaan bi doon waxtaan muy wàllu ndoxu siti wàllu hémorroïde euh, bu ko góor amee ak bu ko jigéen amee saa boo amee ndoxu siti ak hémorroïde nag boo boole ñaar yëpp góor gu ko boole jërul ngay faju ngóora fajul ndoxu siti ndax jamono ji dangay ngay dégg góor ñu bari ndoxu siti moo leen jàpp ak hémorroïde seen awra yi day tuuti ba ba Eh, seen awra bi day faral di am farme yenn saa yi muy eh, muy tuuti bapare dafay nooy te bu dëgëree ba war a dëgër dafay wàccaat bu dee jigéen ñi saa bu nu sëyee seen kanam dafay woow ba pare eh, buñ sëyee ba pare dafay tuuruwaat wala day tàng loolu nag mën nga see jël ëmb boo jëlee ëmb dafay tuuru da ngay avorter ñu naan rab la fekk du rab ndoxu siti la beneen bu dee góor ñi moom pour muy leer sam ndox du normal ba pare da ngay gaaw a daanu ba pare foo toll sa yaram dafay tàyyeel ba pare dafay diis loolu mooy ndoxu siti bi ndoxu siti bi nag am na si cabinet bi muy traitement bi mooy traitement ndoxu siti bi ak hémorroïde bi dindi ko si yow deux semaines ba mu dañ nga xam ne dootoo yëgati gaaw a daanu dootoo ko yëgati sam ndox dana baax ba pare dootoo yëgati yaram buy tàng yaram buy xasan traitement bi nag noonu la si côté góor si côté jigéen ndax ndoxu siti moom ak hémorroïde moom képp ku ko boole di faju ngóora da ngay sonal sa bopp loo mën a jël lu tax loola wér ndoxu siti boo ko amee ak hémorroïde da koy traité ba pare mu deñ ndax boo am na ñoo xam ne ne bu ni saw boo xoolee saw mi dafay metti ba pare saw mi day def ñaari turu ba ñett loolu nag am ndoxu siti boo xam ne dafa nekk si biir nga xam ne sa naq moom mooy metti waaye nag bu timis jotee rek sa yaram bi day tàyyeel te boo yeewoo sa yaram bi day mel ni la dóor ay yàpp day diis ken sa wey yi ñuul kukk ba pare bu sa tànk day xar waaye nag nañ bàyyi xel lenn ci côté jigéen ñi di ko xaw a moytu bon ame ndoxu siti nañu moytu gerte gu ñor yooyu nañ koy moytu ak góor ñeeg ñëpp. waaye nag tey saa bu nu xëyee nañu naan ndox loo tolloog liitaru ndox baax na si lool si wàllu hémorroïde waaye am na fii si cabinet bi traitement bi deux semaines ñu traité la ko nga ba mu wér incha allahu rabbi